lay bare, bëri lay bëree bare, te lay bëree bëri ndaanaan laa ñaari yoon nga ànd ak sa poulain eh, muy Nandi Fall indi ko mu am combat ci digganteem ak Dame Sène nan nga ko préparé waaw waaj na ñu war a waaja ne xam naa ni moom bu xewlee rek ñun ñëpp ku ci gore di nga jóg ndax ñun ñëpp li ñu doon tey moom moo tax ko def wan ñu yoon bi ba tey ñu ñeme ko moo bu xewlee nii rek lañ mën mel supporter la ñuy nekk ba lamb jeex incha allah kon mobile su ma déggee ci sa biir wax Nandi moo la jiitu ci la. mooy sama maître ci bëre lu ma mën ci bëre ginnaaw yàlla Nandi Fall la lu ma ci mën rek bu dee benn xam kele laa ci amin moom la waaw. mais yow nga am sa combat ci sa digganteeg Bour Sine je crois. waaw sama digganteeg Bour Sine sama digganteeg Tonnerre. combat bi kañ la ak Tonnerre. waaw combat man ak Bour Sine la 25 juillet la 25 juillet. 25. waaw. mais mais mobile yi dañ la gis li ngay nekk États-Unis moom ëpp li ngay nekk.

bàyyi ndey ak sa maa yàgg ci coow ndaara yàgg na maa jiin ba ñu ma dalee jiin booba tuuti laa booba su ma dalee damay jooy waaye léegi nu ma dalit damay xeeb lay bari